asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum fu waay mën a nekk ci àdduna bi noo ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa télévision Futur Média di am bànneex bu mag a mag gannaaw bi nu xamee ne yaa ngi seetaan sa émission wareef rawatina sax programme mu télé bi yëpp ñoo ngi door nuyoo bi ci suñu président directeur général ak bépp directeur bu nekk ci biir kër gi nuyu tam groupe Pape Cheikh jàlloo ak ay njooñam noonu lañ koy waxee nuyu ñëpp macha allah dalal leen ak jàmm. kon bokk nu nu ko baaxooy defee daanu dugg ci kër yëpp ëttu këru diine yi di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla ëttu këru diine yi ak ëttu këru aada yi nu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm defal ko seen njaboot defal ko itam képp koo xam ne mi ngi yeewoo ci biir Sénégal nuyu sunu ay xalifa généraux yu ne ci réew mi ba tey waaye nag bu loolu weesoo itam daanu dugg ci biir maison d'arrêt yi di ziyaara ka sargal ñi nga xam ne ñoo fa nekk te yàlla dogal li mu dogal ci ñoom waaye ñun itam ñoo ngi koy tàllal loxo di ko ñaan yaarab bi yàlla na nga leen fa jëlee nu mu gënee gaaw ndax njaboot gi soxla na leen kon boog sunu xarit yooyee sunu soppee yooyee toog foofu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi ndaw yi dugg fépp foo xam ne waaye nga fa tëdd feebar ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla wéral say cër ba nga gaaw itam dellu ci sa biir njaboot ñi leen gunge wax nañ ko saa su ne ndem nit buy dox soxlaam dafay soxla ku ko gunge sàkkatumal ak bu demee tëdd feebar mënalul boppam dara kon yéen tamit yal na yàlla fay leen fay leen bu baax ndax àdduna dimbalante la ñi baaxoo woon di ànd ak nun ah noo ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla yàlla ubbi leen buntu si yooyu am nañ ci yaakaar gannaaw moom li mu sopp bokk na ci saa bu nu xëyee tàllal ko loxo moom borom bi di ko ñaan mu fajal nu sunu ajo di ziar itam dem point e seeti sunu xarit sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al noo ngi koy nuyu di ko ziyaar bu wér eh, du nu fàtte itam ajaratu kinne si mu sëñ Cheikh noo ngi koy nuyu xel dafay daal di dem ci yaafaat si da baax nu ngi koy nuyu waaye mami waaw message bu dikkee itam. Mhm. ah dañu koy waxee. dëgg la ndax suñu bàyyi sëñ Baye si. Mhm. mu sëñ Abdou. Mhm. nee na mi ngi ñuy nuyu. di ñu encouragé di ñu ñaanal. nee na yemale ko sax ci ëttu wareef. waaye mi ngi ñaanal bépp plateau buy nekk ci télé bi. dëgg la bépp émission bu fi nekk. di ñaanal itam borom kër gi. nee na ni mu koy ñaanalee fii la koy ñaanalee télé yëpp. ma jot message bi nag biig mu neex ma lool. ajaratu Fat si sama njëkkee bopp maa ngi lay nuyu di la fóon lu wér. boo ko waxatee da nga ciy teg ah. borom yu neex yi. borom te saa su ne mu ñaanal nu te bu lay ñaanal sa yaram day daw macha allah ah mami mhm. bu loolu passé dañu am itam sunu xarit waaw seen Cheikh Sidi Mokhtar bu baax a baax suñu xaritu bopp du ma ko bàyyee de <laughs> dugg ci ëttu këru diine yëpp man ñuy ndey yi ni ñu ko baaxee defee ndax dafa nekk tradition léegi dëgg la boo gisee Sénégal lu bare du fi am mhm. nu ñu joxee cër sunu ay jur la dëgg la dañ leen a jox cër jiital leen te doon ko gëm mhm. ndax ñu loolu la ñu fekk fii dëgg la dëkku val bu ñu nee dëkk ñu ne dëkku teraanga dëkku valeur mhm. fa la bët yam jàmm rek fi mën a am dëgg la kon boog ñoom mère Satou ñu ngi leen di nuyu ajaratu ndate kan duñ ko fàtte ajaratu soxna mbuub yaa sama sama xaritu bopp la moom. ah yow daal Mendoy. Hmm. yow dégg naa keroog nga ni fii euh, ñoom ñëpp a yem ñoom Satou Diarra ak ñoom ñoom mère Dior ak dañuy jële naka ci seen doom yi euh, di neexal seen sëy. dama ah. ah. sa yaay ak ah. sama yaay ak. waaw mameek mère yi seetaan. ñoom ñu ci bari eh. sëy bu la ñëw ko la jël xam nga man bu ma xëyee cukk la heure bu la kon yow bu la nit cukk nga jóg non non c'est que day fekk ma préparer li moom su doon su doon nelaw sax nga cukk ko bu jóg ah. Ah. xam nga maire dañoo maire yooyu waaw dañoo sëy quarante ans quarante cinq ans mosuñoo fay mosuñoo bouger déedéet duñ dem pourquoi seen doom yi di fay ah. ak a tas. ñuy d'accord maire yooyu sëy 40 ans muñ. lu tax seen doom yi mënuñoo muñ. nopp dal ti na de ni ko ni ko war fay waxee. nopp dal looti na ndoy baan yàlla na nga gudd fan yàlla <laughs> defal la jàmm. nga yàgg loolu daal jaaxal na nga yàgg fekk ñun di waxanteek ñun yi. <laughs> di eh, wax say ma bàyyi la rek nga nuyoo. waaw ndax eh, dafa bokk ci ci tradition. wallaay dëgg la ah dañuy nuyu sunu ay sunu ay soppe. macha allah.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 di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool lool lool te wér di ñaanal itam mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar moom it mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem xalif généraux yi di wax ne nag Sénégal a ngi nii réewum jàmm la ku fi xuloo di xuus booy layoo di defe su lépp dañu koy faral di def ci dal ndax bari wu nu yaatu wu nu kon dal rek sunu mbokk yàlla nañu ko yàlla gën a yónnee ba mu gën fee saawaan baawaan delluwaat nag di wax camara jibante booy yaaxa jaane ko heure bi jotati na xam nga su ma duggee point e bala may génn damay jàdd def kii bi dem seeti ko dem zigzag dem xam nga xale ruube buy kii man damay ruube xam nga jaar dafa dem seeti ko nuyu ko wax ko nuyul ma yaay Kinoushka ak yaay Nafi ak maman Dégène di leen ziyaar ñoom ñëpp waaye nag damay wax ne ko yaay booy jara bu la dara naqari yaay bu la dara naqari léegi man xam naa buntu kër ga dinaa fa wàcc sax léegi ci kanam comme ça mooy gën a gaaw ma ñëwee ñu def ko kii kii mooy gën a noppale ndooy maa ngi maa ngi ziyaar yaay Astou Seck mhm. di nuyu meer Ndoy ak mari sama soxna su baax soo su maa ngi koy ziyaar lu baree bari ak sama bàjjen Awa Diop kesteur bu mag bi waaye delluwaat nag di no dañu am maak moom temps yi lu ñu war a lijjanti mm. dafa dem tournée bàyyi ma fi te bu ma la limalee dëkk yam dem nga xam ne sama bàjjan rek ci meer benn programme yaa ngi ci doon ñëw xam naa waaw damay delluwaat rek di ziar sama sëriñ yooyu hmm. waa kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sama yaakaari tey ëllëg joo nga xamante ne man Cheikh Abdoul Ahad dama koy dund dëggantaan hmm. di ko tàmbalee ca Cheikh Sidi Mbacke xalifa ba ah. ba ci sëriñ Xaadimal Moustapha mi nga xamante ne mooy sama sëriñ hmm. waaye tàmbalee ko ca soxna Maylaat ba ca soxna Jaaratu Laay ma ca mujj ñépp maa ngi leen di ziar di delluwaat di leen ñaanal màggalu suba yàlla nañ ci yegg ak jàmm te lu ñu ci ñaan yàlla taasuñ ci barke tam kullu leen ak jàmm rawatina ci sama daayira bopp bi nga xamante ne départ nañ dig ci guddi jërëjëf Diop jërëjëf booy piir sañu xoor waaw mën ci bii boor mënee ci ci bee boor loolu neex na la de waaw neex na ma ah moom bi nga ko ci yokkal di yéegal niveau yi nag non l'incontournable bi nag yàgg na de depuis rajo ba la woon ba léegi te moom dafay bind day bind nga maas waaw ah, loolu de yàlla dogal na ko moom l'incontournable mooy te nee nañu bind mu amul maas moom kenn mënu koo liir nag waaw ah, àggalil du yoolu yàlla mënoo a seetaan wareef mënoo bañ a déglu euh, libre antenne mënoo bañ a déglu thème de la semaine te yow ñàkk la déglu sax wóoru ah moom ci nax la leen lay dëkk bis bu ne ku la ku la déglu ci ci nax la la ñuy dëkk bis bu ne parce que xam lu mu demee <laughs> ah am na lu ma xam as tuut ñoom bàyyi ña ngay li ma xam bariwul waaye daal xam naa ci as tuut di ziar ñu ngi lay ziar di ziar mameeg maamam ak waa kër ga mm. Moussa Diagne ak toute la eh, famille ñëpp ñu ngi leen di eh, ziar bu baax di ziar kilifa diine ki fi kilifa aada yi ci réew mi di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadr mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañu Xóor suñu sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadr waaw <laughs> suñu sëriñ waaw di di ziar waa Pire sëñ sëñ Moustapha Cissé di ko ñaanal bu baax ak moom parent ji bi Diagne monsieur le maire Serigne Mboup ak notable yi ci dëkk bi yëpp dèjà toujours sama fans yi rek nga xam ne maa ngi maa ngi leen di jégalu bu baax a baax ñoom Adja Marie Seck ñoom Ndiémé Laye Sarr ñoom ñoom Mame Jimi Ndour ñoom ñëpp nga xam ne sama ay xarit la ñu yàgg yàgg sama ñu ma yàgg topp ah mm-hmm. ñoo am na ci ñoo xam ne depuis 10 ans 15 ans ñi ngi may ñi ngi may déglu ñii ña nga bitim réew ñii ñi ngi fii ci ci réew mi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ba ngay tàmbali rajo ndeysaan fekk na nga gën a nekk gone man gardien nga magee Eva Traoré wu déedéet man 2002 laa commencé 2002 2002 laa laa commencé mu ngi ci fukki at ak. Euh, man damaa jóge armée damaa am jóge armée décembre quatre décembre quatre vingt dix huit ah. nekk ci gardien jóge fa dem Sonatel euh, di fa def euh, liggéeyu maintenance nii maintenance réseau informatique ak ñoom seen. waaw jóge fa contrat ba jeex ma delluwaat ca gardien ba Océan FM gardien laa fa woon. kon da nga fa nekkoon gardien. Mhm. daal di fexe ba dem di. animé waaw après puisque man jàng naa affaire technique nii. ñu dugal ma jàngal ma technique wu rajo. d'accord ci biir technique wu rajo ma nekk ci nekk ñi nekk ci ba ak animateur bu fa nekkoon jóge fa dem. Maam Lees daan ni du ma uti animateur xool leen ci biir ban kan mu ngeen mën a former. xoolal ma liggéeyu Maam Lees boobu. voilà après ci lañ ma. camara ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sargal. ci lañ ma jël ci lañ ma jël formé ma def ma animateur. Mhm. mooy ca jamonoy choléra ba. Mhm. reportage bi ma njëkk a def reportage ci biir car rapide yi xam nga booy ni ñuy weccantee xaas bi mhm. ma ne ma ne ma ne bi yow kañ nga gëj a sangu mun ma su ma wàccee laay sangu man ko kañ ngay wàcc mun ma lën su monté lundi samedi lay wàcc donc c'est que léegi <laughs> kooku de njaayee dégg naa ne nag njaayee ni na nañu defee noonu mhm. boo waxee ñu ne tey la lundi samedi la nuy sangu waaw am na ci ñoo xam ne dañ naan la àllarbay kare mhm. nga wax ñu ne la alxamis ji damay waajal àjjuma ji sanguwaale ko équipe technique bi dama xëy gis leen ñu sawar loolu. Mhm. kon xanaa dañuy daal di xuusaat rek. waaw dugg ci li waral waxtaan mais dama am lu ma bëgg a yokk ci lim mu wax ne maam lees a ko defal loolu noonu ba formé ko. maam lees mais formation maam lees boobu yamul foofu ndax dafa puus ndoy baan ba mu formé waat jëmm ji toog muy mami. waaw te bés bu ne nga wax ko. dafay lu ma neex ndax léeg-léeg dangaa gis xale mu mu tàmmali def dara boo ko laajee kuy sa soppe mu ne jeena bàyyi sama soppe kuy sa soppe mu ne Joséphine mi ci kër gi mhm. waaye bu demee ba jekk ba toog mhm. boo ko ne kuy sa soppe mu ne ma référence euh, kay sama référence ma nga bitim réew <laughs> waaye nit nag da gore te jàpp fa nga jàpp ajaratu ko Collé Ardo Sow ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal sa jàmm yàgg yow xam nga fi may waxee waaye nag mbokk yi ñut ñëw ba tey ci wareef gis ngeen lii moo xew nag ci bureau yëpp bu ngeen xëyee dugg ci bureau yi mhm. faaw da nga ne euh, sa sa sa càmmiñ waa ani ani soxna si nu mu def mhm. yàlla bu la yëgal ne soxna si dafa mer da koy daal ne mbaa soxna si giif na léeg bu dee soxnaa dikk xaritam ne ko waa ani sa ji loolu mooy def Sénégal ñun lii mhm. rek la ñu xam yàlla na jàmm yàgg ñu dikkaat ba tey nag yaawal yaatal géew gi ndax bu ñu nee yaatal géew gi yow mii seetaan da nga caa am wàll ñuy waxtaanee nag lan moo woyofal sëy yi àggaguñu sax ci divorce de waaye lan a tax rek sëyu tey daal bu njëkkaan dangay ngay séen sa boroom kër bu dikkee ne salaamaaleykum yaa ngi dem jëli saag ba yaa may ndox mu naan yaa ngi ñëw ne ko mbaa jàmm nga yendoo naka bureau bi naka dossier yi naka naka bu sa jëkkër tukkiwaan doo da ngay yàkkamti mu ñëw dangay mel ni xale bu gisul bàyyi góor itam kazalika la même chose parce que nee nañu boo amee jëkkër baax na léeg ngay gis sa jikko bàyyi ci moom boo amee itam jabar sopp nañ ci nga ne ah diw de xaw naa niroog sama ndey jikko loolu la ñu waaye léegi ku mel ni Eva mën naa seen borom këram toog fa mu toog du ko jege du wax ak moom waa ji mën naa ñëw def fukki minute ci kër gi dem sax une heure de temps du ñu xam ne borom këram ñëw na muy ay jikko yoo xam ne dañuy waxtaan pour gën ko yeesal gën ko defar mm-hmm. ndax ka nga sëyal dangaa commencé ak moom rek ngeen commencé sëy waaye bu jëkkaan fu mu ne woon yow foo ne woon mi ngi woon ci ay loxo yow itam nga nekk ci ay loxo mu mel ni bu ñu nee mi ngi ci ay loxo nga ne ci ay loxo jikko yi wuute nañu yar yi wuute nañu gis-gis yi wuute nañu waaye kaañu ànd nee nañu kaañu ànd mooy kaañu ñu xuloo waaye xuloo bu neex itam am na kon nag sunu gars yi na léppay neex lan moo waral wooye fa ay sëy yi loolu la ñuy waxtaanee téléphone yi ubbi nañ ko 822 ngeen jiital 88 822 828 22 22 Euh, 628 autant pour moi 22 22 628 65 65 toujours ngeen jiital 88 euh, soxna Linguère. waaw lii lañ fi jot a wax. Mm. moo tax li tax plateau bi di neex. Mm. na la nga na nga yàggeek maam. parce que nee nañu bu ñu bëggee jamono dox itam. Mm-hmm. dañuy jël yawoon. Mm-hmm. indi ci yii tey. Mm-hmm. daal di def fusion. def li ci gën a baax ñu jël ko. xam nga doonte yawoon amul lu bon itam. dañu ne ko wat jubbu bañ la xamee. bala nga fàtte koo mayub diw sax bu ñagaloo ñu fakk la. nit ki faw nga dëbb sa dëbbinu maam boo bëggee sa tey sedd. dëgg la ndax nag gis nga maam yi ni ñu defoon ba samp réew mii. waaw boo ko fi teggee te ko fi jëggaani mbiri jàmbur te ñooñu bëgguñu di ñun. kon ñun bu ñu bëgg di ñoom. li ma la waxoon rek laay delloo si waat gis nga Eva. takk nañ waroon a takkee ak waral buñ ko delloo siwut ci réew mii. sëy yu baree baree baree bari nii rek lay demee. mooy feu de lay doon. parce que waral mooy liy tëye sëy bi loo gis dafay am ndëslaay gis nga ba ci batiment ba ñu koy defar dañ ko utal fondement teg ko ci ah, sëy bi nag dafa amul benn fondement bu ko téye te tegale bu jubee rek ndab la jiitu la mbir boo koy teg te tegoo ko ci base yu dëgër ne la wóor ne bu ngelaw ñëwee yóbbaale ko te xam nga xob mën naa naaw waaye ngelaw lu ko dugal ca pax ma du ko ca génne faaw ñu may ko loxo pour mu génnaat loxo boobu nag mooy kilifa yi dëgg la sëy kilifa da koy takk sëy kilifa da koy teewe mais sëy dañ koy waajal mm. mooy dafa am yu ci war a ànd am yuñ ca war a def dëgg la war a teg ndaw si war ko waral teg ko ci digg kër gi mu gis ay nawleem waaw gis ay soppeem gis ñoo xam ne da koy wóor ne ñi ay nooni ndeyam la ñu woon démb ndax ñi bañ ñi bañ démb bu ñu bëggee tey seeni pexe jubagul te nag xeex bañ doon xeex ak sa ndey mën nañ koo wàll si ba ci yow doom ji ba tey boo yàqee mën ngaa jubal seen pexe ñooña toog boo demee defee woon nanga war a defee non xam nga xam nga ndey dafay xëy doom ja mooy gont dëgg la or la de buy ñëw brut lay doon mais eh. borom moo koy poli eh, kontaan naa moo tax ñu ne liggéeyu ndey mbind mu ñuy yeesal la bu doom màggee mas ko mhm. noonu jël ki ci ligne bi allo allo bonjour allo allo allo salaamaaleykum waaye sa na ngeen def ñu ngee sant yàlla di kontaan ci sa woote c'est Ndoye Bane quelqu'un que j'ai allo Monsieur, diminue, diminuez votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Mm-hmm. Diminuez votre téléviseur. Est-ce que vous nous... Hein? Il est parti. Ah, d'accord. Mm-hmm. ne ne xamal nañ ma ne xamal nañ ma ne dem ah waaw euh, waaw euh, maa ngi doon wax ñu ne ñu ngi woon ci liggéeyu ndey waaw parce que xam nga loolu yëpp ndigal ah, mhm. waaye soxna si Jóob baal ma rek non non ñoom ñoo moom émission bi ñun dañ leen fi toogal rek wallaay saar mhm. jërëjëf allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def soxna si ñu ngi sant yàlla di kontaan ci woote bi alhamdulilah na ngeen def naka ndoy baan na def xanaa danga da nga ndekkeegul ñu indil la ndekki wala baat bee suufi rek dama rek da nga soj waaw mu mel ni bare na ci dëkk bi nag. waaw waaw. ñu moytu wis-wisal bu sew bi. Mm-hmm. seen thème bi moo am solo. jërëjëf moo tax. oh. c'est dommage. loolu mbotaan mbotaan la mooy mooy jàpp téléphone bi léeg-léeg. thème mais dina ko bàyyi. thème bi dafa dafa dafa yëngal kër yu bare bare bare. Mm-hmm. Mm-hmm. thème bii. waaw góor ñu bari ñu ngi souffrir. waaw lii la ñuy dund. thème jigéen ñu bari ñu ngi souffrir lii lañuy ñuy dund. thème bi kër yu bari la yëngal. Mhm. dëgg la waaw. Euh, toujours souvent damay wàccee sama soxna ak sama ñoom yaay dañ naan ma bàyyil di généraliser ak tobasi ak ñoom seen. Mhm. li naan wax ju yegg am na foo xam ne soo nee yaay yëpp wala nga ne góor ñi. góor ñi na ku ca bokkul soo nee góor ñi. xam nga di nga xam ni góor ga ca bokkul du ca gis boppam wala yaay ja ca bokkul du ca gis boppam. Euh, jigéen ja ñuy jëli lu lees waxul. lu lees waxul naka grand doon waxee. lu lees waxul démb dégg nga li ma wax. toujours ci allo allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si sunu soppe na nga def ñoo ngi sant bu baax mbaa yeewu nga ci jàmm Eva Eva Tra waaw man la waaw ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah ay ca bisimila ci wareef sant yàlla bu baax a baax sama doom yi maa ngi leen di leen ñaanal rek jërëjëf nday rafet na jërëjëf toogaay bi rafet na bu baax. macha allah. wallaay macha allah. yal na leen yàlla jàppale. amiin yaa booy. barke Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. waaw toppali topp leen rek. yéen ñëpp ak ndoy baax. ñun yaa ngi sunu xol mami yaa sunu xol. macha allah yal na leen yàlla jàppale gën leen a taxawu. amiin yéen itam ci barke Mohamed. sallallahu la wa sallam. wallaay. jërëjëf sama doom dalaa bëgg moom it. ndeysaan da leen a bëgg yéen ñëpp wax dëgg yàlla. ñoo ko ñoo ko raw ñoo ko raw nu mu tudd. Ah, waaw waxtaan yi neex na tubaarkàlla yéen a ngi. sa doom nu mu tudd. macha allah leen ñaanal jàmm rek. amiin ak gudd fan gu ànd ak wér. amiin sallallahu alayhi wa sallam topp la rek te yàlla tax moo bàyyi leen ngeen continuer seen liggéey. jërëjëf woote bi am na solo lool ci ñun yàlla yàlla fayal nu la Eva nga gis benn xale bu jigéen boo xam ni dafa ñëw ci kër waaw yow yaa ngi ñëw ko ñoom tobos allo oui allo na ngeen def ñu ngi sant yàlla mbaa ñëpp ngi ci jàmm ñëpp ngi ci jàmm ñu la koy ñaanal yow itam man maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane di la nuyu yow madame Diagne di nuyu ki sawet ki toog noonu ki sawet jërëjëf kilifa gi di di waxtaan ci wàllu couple yi mhm. bon man li ma ci wax mooy euh, que ni sëyu léegi maanaam sëy yi xew léegi ci réew mi daf fi xew. Mm-hmm. boo seetloo li koy li koy fragiliser léegi. ci goro yi lay jugee. Mm-hmm. maanaam ci ku jigéen ki yaayam. Mm-hmm. la plupart. waaw parce que xale yi léegi boo leen seetloo ñu ngay takk xale bi ngay takk day am ay peut-être vingt ans wala vingt trois ans. wala 22 ans yaayam du ko magee lu bëri. loolu dëgg la. léegi ñoom boo leen takkee ñëw sa kër dafay da ngay difficulté yu bëree bëri pour yor leen wala nekk ak ñoom. Mhm. parce que seen waajur yu jigéen ñi dañuy impliqué wu ci biir sëy bi. Mhm. Mhm. ci beneen façon. parce que bu njëkk mag ñi suñu yaay yi ni ñu daan impliqué ci seen sëyu doom bokkul ak léegi. léegi la plupart sa goro bu jigéen. dafay bëgg nga yor doomam loolu mooy yoon ba pare nga boole ko ci te loolu du yoon. yoraale yoraale sa goro bu jigéen. waaw loolu dafay faral di am. wax dëgg yàlla deuxièmement yow si jëm ba nga bëgg yor sa jabar yor sa kër. yor sa waa kër itam. waaw saay deuxièmement jamono ji ci jëm jëmi boppam neexul. dëgg la. dafa metti y a de problème sa gorom moom nga koy mën nga koy teral di ko defal lépp. na fekk mu lay neex rek nag nga xam lu baax. waa c'est ça na fekk mu lay neex loolu moom dëgg la. Mm-hmm. mais ñoom laa fi baax fekkee def loolu loolu. sa sëy mën na am ay ay problème bu fekkente ni moom ci jëmi boppam jàppul ci sëy bi. Mm-hmm. doomam bëgg ko teg yenn chargé yi wala bëgg ko teg yenn pression yi su boobaa sëy bi neex parce que da ngay wàcc ñëw sa kër bëgg wax sa jabar wala nga bëgg nekk moom ci jàmm loolu doo ko mën a am. dëgg la su boobaa fekkee da nga benn góor boo nga xam nii bëggoo coow sa kër wala bëgguloo ay problème nga muñ lu la naqadi ndeysaan. waaw ah, c'est ça le problème da ngay dem ba benn moment. Mhm. def nag sëy bi dafay éclater wala yow nga nekkat ci jàmm moo la gënal su boobaa da ngay daal di maanaam xale bu jigéen jëm boppam day dem benn moment yow sa jëm bopp daf lay indi problème. Mhm. te problème ak jafe-jafe baaxul. dëgg la. jamono ji daal loolu mooy problème ci sëy yi. Mhm. parce que goro yi jigéen yi aw ma ak ñoom problème mais je vois que ni. la plus plupart du temps ñoom ni ñu mënee takk sëy noonu lañ ko mën a. tas tasee waaw. loolu seetlu bu ngeen war a def la yéen jigéen ñi toog foofu <laughs> par rapport ak suñu ndey yi. dëgg la xam ni ñoom seen jëmmi bopp. Mhm. dañu daan fexe seen doom bu mu sax fay bu mu sant fay automatiquement dañ koy jëlaat yóbbu ko ci seen kër jëkkër bu pare boole ci di ko jàppale. nga gis sa goro bu jigéen day ñëw buy ñëw indi ndugg ci kër bi indi cere indi leneen ak leneen. di jàppale doomam. wallaay ci sutura tout à fait le contraire. ci ci sutura ci sutura. ci sutura c' tout à fait le contraire. Mm-hmm. sa goro bu jigéen day bëgg yow sa jëmmi bopp. waaw na la defal lii na la defal lële wala na def lii na jaar fii kër kër. xam nga xam nga jàmbaar doguñu la looloo taxoon xam naa mami dana d' accord wolof waxoon. Mm-hmm. ne doom bu jigéen jàngaaniwul ndeyamay sëriñam. looloo taxoon loolu moom c'est vrai parce que naa la xamal benn affaire de mhm. goro yu jigéen yooyu toog muy yéen ñooñu ngeen toog xam naa peut seen doom yi peut-être lañ ci sëy mhm. seen doom bu ñu duggee ci sëy yéen yéen a mën a yéen mën a tax sëy bi dem yéen doom yéen ko mën incha allah parce que woo seen doom nekku sa jëkkër de ko toppatoo. dëgg la boobaa yow sa doom bi moom loolu rek lay def li ko yaayam diggal lay def. Mhm. parce que doom bu jigéen moom ndeyam da ciy dëgër trop. rek moom lay def. dëgg la c'est ça le man mii di wax yow j'ai de peine pour mën a yor jigéen fi mu ne nii. ndeysaan. j'ai eu beaucoup de peine j'ai tout fait j'en ai perdu beaucoup de temps j'en ai perdu des millions pour te dire parce que man tereel jigéen laa xam ne le problème en est que da ngay dugg ci jigéen tu perds ton temps. tu mhm. perds ton énergie tu perds de l'argent. Mhm. ñett yooyu alors que yow yor jigéen da nga bëgg. Mhm. parce que bëgguloo nekk ci mo ci mbedd mi di taxawaalu lu ne nga dugg ci di am ay gel tu as les de le faire. am gel tey suba nga am gel mën nga ko jëndal portable buy jar cent mille wala deux cent mille mën nga ko defal lu nekk mais dafa am ñoo xam dañ bëgg yor jigéen bëgguñu génn ci mbedd mi di def naka su dul noonu. mais yow dafa am loo dund est-ce que mën nga ñu wax ci li li nga dund lan man dund naa lu bare bare bari ma mu dundooy ban yow soxla naa si numéro sax bari na lu ma dund loo xam ci xale yu jigéen yi mm-hmm. man ba benn moment sax ma toog ne est-ce que du ma dem ba benn moment gérer suma liggéey gérer suma kër gérer suma doom yu am dund sama dund. déedéet bu def loolu. <coughs> su ma baax ni mu ngi ci dëkk bi de ñu baax a ngi pour dem bu koor jotee ma dem màkk dem julli su ma ñëwee ñibbi si jot naa am ay jabar dund naa dund bu metti l'essentiel léegi le plus important léegi yow si jëm bopp peut-être boo bëggee am jàmm daal tu nga toog sa kër. même pas jàpp sa dund parce que c'est ça madame. c'est ça c'est ça te dama benn waaye mhm. soxna itam ñu ngi fite sunu suñu borom moo santaane loolu xam nga man man damay bañ ñaar wala ñett yàq ba nit foog ne amatul ku baax xëy na malchance la woon rek nga taseeg ñi nga taseen mais ñu baax a ngi ci dëkk bi xam nga xam nga bu yàggee yow sa kaa la la ciy gën mhm. xëy na ndoy baan dana ci ñëw ak man mhm. danga wax sa waa kër wala ku baax koo wóolu na la utal ku baax Mm-hmm. je pense ah. parfois loolu mooy solution bi. Mm-hmm. yow daal booy jëlati xamal fa ngay jëlee fan la loolu moo am solo. parce que nit ku amul kilifa di xuloog moom dafa metti gis nga gis nga kuy kuy kuy ragal na ragal nit ku amul kilifa. lu ko neex lay wax. <laughs> lu ko neex lay doo am da nga am jooyu xol. doo am foo ko boole. nga dëkk ci métit Eva gis nga góor na na jëlaat ki ci ligne bi inspecteur kii foo nga waxal ko moom. <laughs> ah <laughs> allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax nu ngi lay nuyu di kontaan ci sa woote. ñu ngi lay fay. jërëjëf. je vous en je vous en Eh, mu me mu mel ni yaa ngi ci yoon di dawal. waaw maa ngi nii maa ngi nii gaare naa. yal na nga àgg ak jàmm. donc euh, voilà ñu ngi leen ko participer ci rajo bi nga ñuy déglu alors. waaw waaw waaw donc euh, instant yi daal émission bi soxal na ma. Mm-hmm. yow rek la ñuy déglu bisimilah ñu ngi lay déglu. voilà parce que avant je ne voyais mm-hmm. man ay histoire yoo xam ne daal amul daal. waaw wàññil sa wàññil wàññil rajo bi nga wax ak ñun. mën nga ko sax fay. Non, non, Ah, très bien, très bien. Voilà. Donc, c'était juste pour rebondir sur cette émission. Mm -hmm. Donc, euh, pour vous dire que li ngeen thème mi ngeen wax ni dama ko dund en direct parce que man dama am sama soxna maa ngi tàggoog moom samedi passé. et euh, maak moom xamante nañ depuis 2004. de 2004 ba ba ñuy marié il y a deux ans. Mm-hmm. am yoo xamante ne defoon na ko si loo xam ne ne daal suñu diggante di sëq ak yeneen góor ay ay paru paru jëkk paru meilleure copine am waral ñëw def mm-hmm. mariage ak moom mu sëq ak ah? ma xam loolu mm-hmm. ma yëg ko bi ma ko yëgee ma suturaal ko di xool ndax di ko jéem a jubanti waaw mais jubanti bi yëpp lan moom ma si fekk bi ma ñëwee ba ñu commencé sëy su ma voyagé man France laa nekk am ay góor yu ñëw fii si sama kër yenn guddi yenn heure yi ma wootee mu naa ma ay kii dafa doon ñëw pour defal télé beeg mhm. ma dem ba sama xel commencé ñaaw mhm. Mhm. mu moom nag bu demee expliqué ay magam ne daal man dama fiir sama wax neexul léegi magam bu jigéen ah. day wootee si kër gi ay guddi di laaj ndax sa jëkkër ban heure la ñibbisi ban heure la génn dugg daal di mel ni moom mooy sëy mooy sëy daal si kër gi waaw ma xam affaire yi xaw ma lu muy nuyoo moom bu mu demee nag waa këram xam facettes yi li nekk ci moom yëpp et du coup ma dund ko def lu nekk ci moom mm-hmm. mais bu toogee seen biir kër daal ŋàññi ma ne man sama man dama naqari deret xanaa ku mm. naqari deret rek bu dee jigéen bu bëgg a sëy boo loolu naqari naqari deret sa jëkk bu naqari deret xanaa ay mag dañ ñëw wax ak yow mm-hmm. nee la sëyal mm-hmm. mu ñëw wala dara mais loolu yëpp dafa ñëw ànd ak sœur bi moo ñëw jël si ay bagage bi si kër gi nee na ma ñaar may sama baat na may ko baat bi te pour vous ne dans ce dans dans ce am na ci ay jigéen yu baax comme ni ngeen yu baax am na mais am na ci benn minorité boo xamante ne ñu ngi yàq deru jigéen ñi ñu ngi ñu ngi yàq xolu nit di daal dëgg la donc bi euh, ay ay ay ay affaires yoo xamante ne tey su ma parce que alxuraan da nga naan di te soxla soosu tey jii boo ko gisoon yow da nga naan ni kii yiw la fii la nekk elle travaille fii lay fii compagnie Sonatel lay liggéey et puis lay def te voilà pour faire le non pour le xam nga ma sonn si relation bi sonn si dugub bi ba sama xam nañ sama waa kër bu ma leen waxoon jikko ndaw si dinañ ma ne kii bu ko tax. Mm-hmm. ma ma yàgg bëgg ndaw si. ndeysaan topp si ginnaaw di ko jéem a jubanti. parce que yàlla nee na nga jubanti ma kenn kenn ku ku. Euh, kenn ku dëng moo gën nga rayal ma téeméeri war a def safara. tey mm-hmm. waay. donc ma nekk di nekk si di mu di mu di mu loolu yëpp. ba weeru koor gi paase. ba ñëw jóge France ñëw mu waroon toog dëkk moom ndogu mu ñëw dem France ne day fay dem def suuf yi bàyyi naag bon bi bon bi du ma defaral ndogu xam nga ne kooku du sëykat. tey waay. te yooyu daal yu doy waar daal. yu doy waar ndeysaan yu yu naqadee wax. métti voilà yu naq yu naqadee wax. boo ko waxee ñu ne amoo sutura sax. voilà voilà exactement. mais xam mhm. nga de 2006 ba 2016 aujourd'hui 10 ans. Mhm. su ma la waxoon tey jii ndaw si li mu def. koo ko waxoon su may lu ma ko bëgg bëgg samay waajur duñ ma may ne nangu ma seeg doo soot ki alxuraan ko yàlla ma gisee gën a fekk laa lay wax. yaa bari sutura waaye ndeysaan. xam nga xam nga man muñ ko jóge na France bi mu yëgee ne xam naa li mu def mu jóge France ñëw Dakar deux jours dal hôtel Ndiambour la Ndiambour ñu nekk ko su affect na dal fa deux jours waa këram xamuñu ne mi ngi Dakar pour lijjanti rek affaire boobu mu suturaal ko waxuma kenn dara ma tëdd ak di dem ak loolu mais nag wax xëy xanaa góor boo demee ba sa jabar sa xel di tey si moom am nga droit nag surveiller di xool. waaw mm-hmm. bu baax waaw mais nag ay magam nag ak nag loolu la ñu accepté woon nee na ma non parce que man damaa damaa fiir daal daal dama fiir te sama wax neexul mais nag maa yéen fiir comme que nag yéen xamu leen woon li tax ma fiir léegi nag amal naa leen ko ba wane leen ko ñuy dégg man nag yu bulee participer si émission pour nit yi xam na ne dëkk bi kuy sëy jigéen yu baax am na. pour yeete waaw pour yedd ak këram waa këram bi dee ñu ngi seetaan émission bi ñu xam si seen doom ba ëllëg ba ko yàlla nga may dëkk tamit nañu xam dugal si bopp noppam loo xam ne boo waxee ay magam ñu naan la si cinq pour cent jigéen yi nga xam ne mënal lañ suñu bopp loolu lu waxu jigéen xam nga loolu loolu ku bëgg a sëy wala ku ku xam ne am nga loo gëm ku nangu autorité doo doo doo doo wax loolu jërëjëf donc euh, voilà daa daanu jégalu merci beaucoup <laughs> daanu waxtaanee sa mbir itam ah. ma ni jërëjëf euh, inspecteur mm-hmm. dafa am lu nit ñi itam war a bàyyi. Mhm. da ngaa gis benn njëkke bu dikk wala benn euh, beau frère bu dëkk des deux côtés ah. da ngaa fiir da fiir da ngaa fiir. ñëw dafa am loo xam ne. bu ko nit ki di gis ci nit di fiir. Mhm. mais gis nga nit ñi du ñu bokk ci problème bu couple bi. dañuy ñëw ne kii warta mel ni kii warta mel ni te ñaari nit yi ñooy ànd ñoo xam la ne seen diggante ak naan léeg saay inspecteur bu doon man la yow du yow ndax du sa histoire mhm. lu waay bokkul bokkoo ca mhm. gis nga Baye Malick daal Papa Malick si balaa maa ñëw ci yow mhm. ndeysaan ci sunu ay waxtaan ndax sunu kilifa la itam dana diisoog ñun nee sëy kenn du ko utal intermédiaire Mm-hmm. day leen fexe bay régler seen problème seen biir nekk ci intermédiaire te jigéen ñi fi nekk seen sëy yi naqadi ñu koy muñ bare nañ gis nga taxul dem def yenn gis nga waa ji démb mm-hmm. ma ba zéro heure bi yéen a ngi waxtaan man ak moom ñi ngi ci sur le terrain gisante nañu waa ji yéen ngi sur le terrain nga waxati démb man la woo mu woo ma wax ma ko ma génn ci guddi gi wëri ko ñu waxtaan man ak moom mm-hmm. filmé naa ko maa ngi film bi mais yaayam moo bëggul film bi jàll ñu bloqué ko mhm. kii nii li ko dal mooy lu nuyoo woon ca ngoro la lu feeñ ci sëy bi da ko doon jéem a defar ne dina baax ndaw si soo est-ce que dégg baax li la waa ji expliqué waaw da doon jéem defar benn copinam copinam bu copinu jabar ji ju am faram bu ko waroon takk si bu ne bitim réew kooku la jabar ji di ànd copine bi ñëw euh, copain bi ñëw ñuy préparer mariage bi ki mu nar a takk moom séq ak moom affaire bi dem ba feeñ loolu loolu mooy problème bi mu demee ki mu nar a takk ki mu nar a takk maanaam euh, ki mu nar a takk gelam bi moo def rapport ak euh, faru meilleure copine am waa ji dafa jóge bitim réew ñëw Sénégal pour pré préparer mariage am xale bu jigéen bi muy wax moo ko doon jàppale ci mariage bi ñoom ñaan ñu ñu bëggee. xale bu jigéen bi mooy jabaram. moom moom mooy mooy jabar waa ji léegi bi ko xale bu jigéen bi muy def loolu. dafa fekk takkugu ko takku ko bi mu demee ba takk ko lu ba la la la lu bari feeñ li ma doon wax fii démb naan leen bàyyi leen takk xale yu jigéen yu rafet yi di leen wutal ay appartement takk na ko wutal ko appartement fii yow kon démb ba ngay wax dafa am lu la tax di wax sax non démb ba démb ba ma koy wax c'est parce que jotuguma woon information bi jigéen ñi waa bu leen ma joxal ndoy baan raison déglu ma buñ ma joxal ndoy baan waa ji waa ji jël na appartement dugal fa jabar ji di tukki dellu bitim réew ni gardien bi sama kër a ngi nii sama jabar a ngi nii bàyyil ma fi xel gardien bi day toog ba guddi mu bippé sa waay sa waay woo ko mu ne ko am na oto bu fi gaare bu deekaa léeg-léeg lii waajaa ngi ci kaw su waa ji wooyee jabaram ci guddi gi xam nga su góor soo su soo amee jëkkër sa jëkkër bàyyi la ci appartement woo la ay minuit ngay patiner moo naan la xanaa kër gi dafa am ku fi nekk nga naan ko réparé katu télé bi moo fi nekk kii réparé télé bi moo nekk sa biir kër ay minuit gaare 4 répa ana réparateur tel tel am ak 4-4 minuit mu def ko ko deux fois trois fois gardien bi moom mooy informé waa ji waa ji dem ba xam yooyu loolu laa doon wax dem que ni soo leen fi bàyyee xale bu jigéen bu dëkk moom kese du ñëpp nag comme ni ma ni ko gars yi bëggee ji ñëpp nag ñu ci ëpp gars yi fa la ñuy dem di fa naani kafe di fa góor li gars yi naan. ku te moom sëyam bi naqadiwul woon. ndax amul benn problème. bu tax amoon na ay signal yàlla doon na ko won ay signal ca ca ndoxaan ga ba ci biir sëy bi léegi nag ndaw si puisque day liggéey am na mën na mënal na boppam ay waajur mënal nañ seen bopp moo tax souvent du ñu respecté gars yi gars yi loolu mooy problème mu waaj yi. waaye nag waxtaan waaye li nga dellu delloo nu tuuti ci cosaan. parce que mhm. dafay baax ñu cooy dugg. Mhm. mënal taxul nga jàppee góor sagar mhm. mën ngaa ne sama sëy dafa naqadi naa ci wut solution mhm. wala kat damaa bëgg dem nigal ma xool nu may demee mhm. waaye naa ànd ak sutura yaa moom sama waaye xam nga dafa am ñett ñu dénkaane woon cib sëy na dellu si bopp beneen bi ci topp nag mooy bi may njëkk a wax mooy gis nga boo demee ay raaja buuja may la jabar wengare rek lañ la mën a dénk leneen li mooy dollil dollil dollil ay raaja buuja buñ la mayee jabar wengare lay doon beneen bi ci topp mooy gis nga ragg bopp golo yàq saabu la ka nga xam jikkoom démb di ko màpp màppal boo ko dugalee sa kër caay-caay ga doon nelaw ca moom ay waat mhm. góor ñi itam nañ bàyyi takkub taar tey takki fañ war a takkee jabar dañu koy seet waxoon naa leen ko fii démb mhm. jàngat ko boo duggee ci kër fekk meer ba muuru ne man laj du julli doom ja solub suufesam di tëbëk a cëpp-cëpp yi dama ko ñëw oto bu gaare mun a ñëw ca noongu yéeg soo bëggee takkal doom ja xam nga lu tax mhm. suy màgg di fekki ndayam ca lam ne seet googu ngay wax waaye boo duggee ci kër mhm. fekk doom ja muuru du julli mhm. nday ja takk ay bin binam quatre rapide ah. quatre bu gaare yeb yaayam yóbbu indi yaayam di wuyu téléphone ca ruq duus ba ba doom ja bu ko takk ndax su màggee dëbb dëbbi nu ndayam ñett yi nag jigéen ju ko fii sa yàlla na la wóor na sab say weesoo gut a tas ban ak ban ak ban li tax ma dellu si waatoon ci waral mooy gis nga bis bi ngay dem sab taar da nga koy bàyyi ak sa rakk yu jigéen yi toll ci jaayut a jaraguñ jëkkër kenn du ne ko maa jongo ma dalaa gis ba romb buntu kër yépp ñëw takk la kon sab denc ko dencal ko say rakk yu jigéen ya toll ca jaayu xam na li ci yow sa doole bàyyee ko sa ponkalum rakk ju góor ja nekk ca kër ga mu yor ko di ca xeex ngir mën a aar waa kër ga waaye sa alal itam bàyyee ko say càmm mi ñu toll ci yor ca sa yaay ak yor ca seen waa kër mooy jëkkër kenn du ko bàkkoob am-am. boo demee woyof tool. ba mel ne mbaxana lu ko moy nga dégg. waaye foofu li ma fi bëgg a dolli Eva mooy. waaw nañu xam ne tamit gis nga jigéen bluetooth la waxoon naa la ko fi. Mm-hmm. léeg yaa koy activé. waaye soo ko activer ba pare <laughs> da ngay fexe nag ba mu yem ci yow ndax sinon lu ko naqari dinañ ci envoyé leneen. dem ba fi rek wóoru. déedéet loola mooy booy takk da ngay takk koo xamante ne danga nga koo fekk mu toog ca peggum ndayam. allo nanu ci ligne bi allo. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si kontaan nañu ci sa woote. maa gën a kontaan sama soppe yi macha allah macha allah yàlla yàlla lafa leen cat. amiin yaa rabbal alamin amiin. macha allah macha allah macha allah yi ñu fi toog ñëpp. macha allah ku leen di déglu rek. Euh, day dellusiwaat ci lu bare bare bare. jërëjëf ay xale ngeen mën naa ne ah yéen a ngi yee ay mag yoo xamante ni. Mhm. macha allah fi ñuy toog dinañ changé ci lu bare bare bare. lenn rek laa ciy xaw a sànni xeer tuuti. sànni dee leen bu ñu duggee rek dee leen jël nit ñi parce que yenn saa dañ leen bëgg ba nga xam dañuy jël fii quinze mille francs wala dix mille francs pour crédit pour di leen jox. Mhm. léegi bu ñu duggee bu ngeen continuer di waxtaan lu sori peut-être participation bi ñu bëgg a def. ba mu doon dafay néew day mhm. néew ñu ngi leen di déglu. waaw te soppe xam nga nga gis ko fas comme man damay fas sama benn dix mille rek na wareef laay xaar pour dugg <laughs> kon yàlla yàlla yokk seen. moo tax service à valeur ajoutée faw mu jox ñu bopp bu bëri amiin ñu joxe leen fa làq yeggul donc man li ma ci participer rek ma chérie yéen ñi fi toog ñu kenn ku nekk wax na ci mm-hmm. dëgg la macha allah xam nga éducation de base dafa am solo mm-hmm. gis nga éducation de base dafa am solo mm-hmm. ñi ñi jël téléphone di wax yi presque ñun ñoo bokk ay génération bu baax am na lu am solo ngeen wax léegi mm. foo fekk ku baax rek fekk fa ko bon mhm. mais éducation de base li tax mu am solo mooy suñu yaay yi dafa am nu ñu doon yare mhm. tey dañuy liggéey dañuy am xaalis mhm. mais boo gisee façon bi nga xamante ni moom la ñuy téye suñu borom kër dañuy wax ne suñu borom kër na nekk jaaykatu kër yi suñu borom kër na nekk yenukatu matta ñun nañu am lu dul jeex mais na nekk jullit rek te jukko ji baax boole la yëpp def comme xadijatu soxna xadija soxna xadijatu kooku ba muy dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëppoon alal fuuf waaye wane wu ko dafa boole mm. alalam ak taaram ak jukkoom ak yépp benn ko kon am naa de base bu fekkee ne am na mm-hmm. ñun yaay yi ni mu doon def dañ doon xool lu ñuy doxale ñu jékki-jékki woo ñu ñu waxtaan mm-hmm. ñu ne ah nangam ak nangam du ñu nëpp li am ci biir néeg bi suñu diggante ak suñu ay sam papa mm-hmm. nii la ñuy doxale nii lañ war a doxale jigéen nii lay doxale ci néegu sëyam mhm. suturaalal sa jëkkër nii nga war a def ci sa àdduna jil jiital am am sëy nag bala moo barkeel dëgg dëgg dëgg mu naqari wallaay moo barkeel dëgg mu naqari gis nga bët bu rusul pacc mhm. gis nga ñun jigéen ñi mën nañoo yar góor ñi góor mën naa mel nu nekk nee nañ yenn saa yi jigéen góor day baax parce que jabar ja baax na waaye yenn saa yi góor baax sax mu changé bon ndax jabar ji. Mhm. jabar yi lépp lool lool lool comme ndey. Mhm. kon am na comportement yoo xamante ni bu buñ ko yoree rek defe naa ne lu bari mën naa changé ku jëlee suñu jëkkër yi def leen comme yaay comme jëkkër comme baay. Mhm. ba ñu jël alal di ko jiitale fenn alal jooyoon ak lu mu mën ci doon ak loo mën a toll loo mën a jàng foo toll boo xasee ba am borom kër lépp moo ko boole gérer. wallaay dëgg la. te bu ko ko xeebal te bët bu laa wax gis nga góor boo nekkee moom ci kër. mu xam ne amul wala dara nga def. ndeysaan indi am na solo lool waaye li mu ci jot a wax am na solo. xam nga mhm. man duma duñ ci yokk dara li ngeen mhm. mhm. euh, jóg. Diop dañuy daal di dem rek à la régie. waaw parce que inspecteur mi toog. doxal nañu yëf bu am solo. ci la ñu ko moom ñàkk ko déglu wóorul. kon boog xarit yi. nañ nañ leen duggandoo ba pare régie xool li nga xam ne sunu waa ji defal nañu ko. li tax ma suur sama jëkkër mooy ay kàddu yu ñaaw ay xaste mënul daal wax lu rafet jëmale ko ci sama der am na bés ñuy xuloo mu ne ma mën naa laa bàyyi ndax jigéen ñaa ngi fi ne xas dañoo yomb comme ni nga yombee boo génnee dem jaayi sa njaay boo ñibbisee fekkaat ko ci kër gi mu ne la demoo woon jaayi dangaa jaayi woon sa bopp boo reppee ba tënjoo sa sër walla sa servet nga am loo doon def mën na la jikko cagar nga yore moo tax ngay def nii dangay am koy charmer di la fiireeg ñépp nag du bàyyi sax sama càmmiñ ñi nga xam ne dama bokk ak ñoom benn ndey am na si koo xam ne mës na may xaalis mu ne ma man damay dem foofu da yàq deru kooku mu won ma ne daal moom bëggul samay càmmiñ di ma may xaalis te loolu lépp ay kàddu yu ñaaw kàddu yu ñaaw yooyu moo nekk di yàq sama sëy ak moom ñu dem ci ba nga xam ne sentiratuma benn mbëggeel pour moom dem nañ ba nga xam ne su ma tegee loxo sax duma sentir ne kii góor la ñu dem ba nga xam ne nii nag ci laa fas yéene araamal nag mu xam lan laa woddoo parce que li tax ma egg ci foofu mooy ne wax naa ko ko parce que nee naa ko man mënuma concevoir saa yoo ma bëggee xas nga xas ma wax ma lu la neex ay kàddu yu salte yu la neex nga wax ma ko te bu guddee nga bànneexu ci sama yaram loolu laa imaginer mënatuma ko concevoir loolu moom moo yàq sama sëy moo yàq sama diggante ak sama jëkkër ndax kàddu yu ñaaw yi mu doon wax di ko jëmale ci man ma koy dégg sama nopp muy dugg ci sama biir xol ñu dem ba nga xam ne sax man mënatuma wér ñàkk wérgu yaram rek laa doon yëg ci sama yaram façon feebar bu bon bu nekk maa ngi ko doon xalaat ci sama bopp yenn saay ma yaakaar ni dama am cardiaque ndax damay tëdd di fatt duma mën a nooyi yenn saay sama put bi dafay metti ba ma yaakaar ne dama gowaat jour bi ma génnee këram laa fàtte sax ne ndoy baan een yàq sama diggante sama jëkkër yépp ci moom rekk la jóge ndax dafa jóge ci ay kàddoom bu paasee sax jëf yi nga xam ne mën nañ cee teg bët kàddu yi metti yi nga xam ne dafay dugg ci biir xolo nit gaañ ko ci la bokk ndax man sama een ak sama jëkkër mu ngi tàmbalee ci bi ma ëmbee sama doomu taaw bi ma ëmbee sama doomu taaw te def naa traitement bu nekk pour ma amal ko doom boobu ndax yéex nañu am doom ba ma commencé woon ci di dégg loo xam ne lii neexu ma ma reyante xëy na moom tamit xaalisam mu ngi ci doon dem mais man tamit sonnoon naa ci trop pour ma mën koo indil doom mais jour bi ma ëmbee jour bi ma ko njëkkee annoncé ni que dama ëmb dafa mel ni jour boobu la suñu sëy yëpp yàqu parce que jour boobu la commencé di ma maltraité comme ku ne rek kii léegi daal ëmb na gaare na lu ma ko mënti def tamit du yàq suñu diggante mu commencé di doxaan di doxaan koo xam ne ñaari kër ñoo dox sama digganteeg moom ñëpp di ko ngungunee ba wax ji yegg si si man ma wax ko ko jour bi ma ko waxee ni yëg naa ki ngay doxaan xam nga lan la ma tontu daf ne ma dama yaakaaroon ni yëgoo ko mais comme yëg nga ko léegi garaawul mën naa takk yëgal ne daal dama koy takk te moment boobu man maa ngi ci état boo xam ne bii ëmbuma rek yem ci mais dama ci dama ci boolewaale feebar dama ëmbaale ak feebar te loolu fekk na sama première visite sama docteur bindal ma def analyse boo xam ne treize mille lañ koy defee ndax nee na ma infection yi nga ëmbaale boo ko continuer sa doom bi du seve walla boo yow bu bu doom bi demee ba mat mën na la indil problème balaa ngay am doom dañuy def gaaw def traitement bi jour bi ma ko indilee kayitu analyse bi wax ko ko ne dama war a def analyse dafa xëcc trois daal di ko fay duggal deux jours waxul ci analyse bi te man xam naa ne moment boobu yorul problème mu xaalis deux jours mu dem jënd benn appareil buy jar cent mille francs ñëw indi ko ma ne ko lii nag mu ne ma lii de cent mille laata jënde ma nekk yow xanaa danga fàtte sama analyse bi mu ne ma fàttewu ma ko dama kaa talul ndoy baan pour wax la ne rek li ma suuree sama jëkkër yëpp ci ëmb boobu la jóge bi ma amee doom ma boole li ma neex ak li ma naqari continué waat forcé ne damay muñ mais ci lay yëgee ne daal ci ëmb boobu ci lay yëgee ne bëggatuma dara ci moom bëggatuma sentiratuma dara pour moom mais naa continuer rek xëy na changement dina ndoy baan ëmb bi jàll mu remplacer ko ay kàddu bu waxeek man nag dafa fekk ne dafay wax ak man kàddu boo xam ne bi daf may gaañ ci sama biir xol te yenn saay daf may accuser loo xam ne c'est pas vrai dara amu ci ndax accusation mënul passé am na bés dama dem fekk ma doon liggéey sama liggéey boobu weekend la tombeel ndax dama doon liggéey weekend bi beneen duma ko liggéey ci benn école bu am internat la doon liggéey ay xale laa doon gérer foofu di leen toppatoo weekend boobu ma dem liggéeyi euh, ma ni ko su ma wàccee de dinaa dem dinaa dem Medina ndax dafa am sama benn cousine bu amoon jëkkër ñu demoon seen ndindameer mu ñibbisi di def mbaxalam ma ne ko su ma wàccee dinaa dem foofu mu ne ma baax na avant may wàcc rek guddee naa foofu ci école bi bi ma demee foofu Medina ak de présence rek laa fa def ndax rek bugguma dara mu am dara lum ma wax ma gaawantu daw ñibbisi ma ñibbisee ma fekk ko mu wàcc mu commencé di dal ci sama kaw ma noppi parce que boobu fekk na man jàng naa mu wax mu wax rek ma noppi mënuma ko woon ci suñ commencement wu sëy mais dañu dem ba nga xam ne mën naa supporter ma toog muy wax fii ba suba duma ko wuyu mu commencé di ma wax di ma wax lu ko neex faalewu ma ko ba mu sonn mu ne ma danga yaakaar ne yow rek yaa fi jigéen mais jigéen ñaa ngi fi ne xas te dañoo yomb comme ni nga yombee pour ñëw ak yéen rek ci moo yi nga xam ne moom mooy agressé jigéen ñi ci biir kër yi mu mel ni yaa jël muul nga dóor ko ndax xaw ma lan la moo war a tax mu xalaat xalaat bu ñaaw boobu noonu ba wax ma ko ba tey ma noppi ñu def quelque temps ma demoon di fayeeku ji sama xaalisu njaay yu ma placé woon avant may ñibbisi jour boobu moom moo teel a ñibbisi ma fekkaat ko ci kër gi encore mu laaj ma fan nga demoon ma nekk dama demoon récupérer ji sama xaalis waay soxna si massa coono waay xam naa ne li la dal itam am na jigéen yoo xam ne ñu ngee seetaan télé waaye seen xool neexul ña ngay toog di muñ inspecteur yu gën a garaaw yi la ñuy gën a garaaw yi ñu ngi ci biir kër gi hmm. waaye tamit di di attirer rek attention góor yi ci dara boo nekkee jigéen ba mu wan na lor ànd ak noo mënti mel sarax ko ngir yàlla mu wasin ci jàmm sax mais am na ci soxna yoo xam ne Linguère mhm. bu nu la dee nettali seen ay grossesse souvenirs yi ñu ci jëlee mhm. dana tax jur doom soof leen ngir yàlla dimbali leen nu sarax leen nu balaa inspecteur Ndoye Bane di dellu si Ndoye xam naa ne lii yow sax sa xol sot na te dafay xale bu yaru de gis nga mami wax dafa grave mhm. gis nga dañuy tase ñun ñëpp rek di mbelli mbelli di wax waaye gis nga boo waxee dëgg bu dee dëgg na koy waxee dafay leer allo allo allo salaamaaleykum na ngeen def soxna si maa leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. damaa bëggoon yow rek lañuy ñuy déglu. man dama doon laajte ndax xaalisu àdduna jar na nga jël ay xale. waaw ñeenti xale. juróom. waaw def leen ñu séparé seen yaay ak seen papa. ah. ndax xaalis àdduna. ak alal waaw jar na nga jël ñeenti xale bëgg séparé seen yaay ak seen papa. jaru ko. jaru ko. man daal damaa doon seetaan émission bi fan damay xool. xëy na ñu waa côté bii dañu am malchance yenn jigéen ñi am malchance yenn góor ñi am malchance. Mhm. ndax man damaa nekk xale bi sëy nekk bitim réew. waaw 37 ans laa am ma jëkkër nekk beneen dëkk man ne ñun ñëpp ñu ci Europe bi ñu sëy moom rek te yàlla tax léegi nag ñu may sëy moom te yàlla tax tijjil ko sama biir mënoon naa def ne ñëpp planifié ba ñu am ak moom doom mais yàlla may na ma ma am ak moom ay bant. jural naa ko ñeenti bant yàlla def nag ma dem vacance ma defee demee vacance ak mag samay doom ñoo tukkoon fi ma mu ne ñu ne ma bii xale yi duñ dem doo leen yóbbu da leen fii bàyyi mhm. waaw ma bañ a xëccoog sama borom kër ma bàyyi sa samay doom mais sama doom maa ngi ko bàyyi suñu kër man xam naa ne ñoom mënuñu ko téye parce que ñoom ma ne ko léegi man xam naa leen di bàyyi parce que samay doom bu ma leen di bàyyi dama xool lu leer may bàyyi da may wax mën leen inscrire wala da leen di yóbbu mu ne ma dinaa la rappeler rappeler ma ne ma inscrire leen foofu seen kër école bi nekk seen kër ma inscrire leen léegi noonu li ma leen inscrire ñu nekk fa xale yi dañuy dem ci kenn di dem seet yi di doon bi passé sama doom bi dafa ñëw man bëgguma sax xale ma yaay ne ko waaye yow xanaa yow borootu woo leen fi nga nekkoon mu ne sama sab dafa jéexoon ma ñaan sama maam fas mu ne ma du yéen da ngeen daan indi seen fas li tax indi woo leen seen fas bi saa sama doom bi benn kenn ki dem cabinet fekk wiiri wiiri commencé mu ne kaa leen ma maire bi ne jànq bi bu ko laaj ngeen baal ma ci wax ci ci dafa tàmmi day seetaanal film bi ba pare nga doog koo laaj imagine xale bu foofu wiiri wiiri commencé bu jeex ñu koy doog te yaayam mën koo téye daan leen ba heure bi man daal lenn moo tax moo bëgg a tax sama sëy ndax sama doom jëkkër dañ ko yokkal grade mu ne yaay ñaanal ma yooyu grade bi bu yokkoo ma téye fi ñeenti doom kon xaalis bi yëpp man la koy yónnee waaw léegi nee na xaalis bi kon man la koy yónnee ndax ñeenti doom frais yi dafa bëri yóbbu leen Sénégal nga mën a réaliser moom su weer bi dee loo ko sànni baax na te man je te jure ans maa ngi liggéey xaaruma ki moom ndax moom avant boobu liggéeyul am na difficulté xëy na man ak moom lu muñal naa ko maa ko war a muñ ku toog di liggéey treize ans di defal boppam di defal ay yàlla fekk la ci dëkk ba nga dem këyit di doog a ñëw leneen di doog a ñëw te chaque fois daf ma daan wax bés bu neexee billaa axi kenn du séttal yow rek yaay séttal <laughs> man nag yàlla defal ma man ma loxo boo xam ne dama naan jox ma damaa mos ci liggéey su ma xam loolu la ma seede daal may xalaat ndax alalu àdduna jar na xale yooyu war a nekk séparé ma bëggoon nag di am numéro mami wala ndoy baan bu fekkee mën na la dina la ko jox léegi soxna si. waaw mhm. euh, Ndoye jox ko numéro bi ba pare. 77. bindal am nga loo bindee. waaw xam bind. utal bindukaay nga bind. 77 mhm. waaw. 632. 632 waaw. 73 69 73 69. 73. 69. 6 9. 632 waaw. waaw merci beaucoup dina leen woowaat. ok. yal na yàlla faj soxla yi. doom yi tamit doom yi tamit ci li yànqal sëy la bokk. xam nga appel yi parfois ligne bi. dafay am nu mu def. waaw jëkkëram daf ko aaye nekk ak doomam yi. ca dëkk ba mu ne. waaw film bi nii à la fin defe naa dafa war a envoyé doom yi fii parce que doom yi dafa commencé coûter jëkkër ji cher la fële. waaw nañ ñëw ay ma baal. dañuy bañ dépense doom yi gën a bari. waa léegi. Mhm. inspecteur. Mhm. atte bu gaaw amaan na dina am ñu d'accord ak moom am ñu d'accordul ak man. Mhm. gis nga sa doom mooy sa ëllëg. moom na des ci sëyam waaye na ñëw ak doom yi jamono boo xam ne jëkkëram mën naa ñëw mu ñëw di leen seet. gis nga leen laal parce que itam joxe sa doom. te mënoon leen a téye dëgg la conjoncture bi xëy na foofu day na waar. Mhm. waaye la ngay def ci sa doom ëll euh, tey. Mhm. ah moom la lay jox ëllëg en man li ma leen di conseillé daal bu ñu fexe ba doom yi fay ay nen yu ñu tojul. man daal doom yi ñoom ñaanu ñaanuñu pour ñoom ñaan ñu jur leen ñun jéem waxtaan ba jubóo pour gérer seen i doom ca gàttal ma nekk ak yow ca dëkk tubaab yi nga ne ma ñu jël doom yëpp indi fii. man sama xol dafa nekk ci doom yi lool il faut mhm. nañu wax franchement mhm. sama xol dafa nekk ci sama doom yi lool mhm. mënuloo ñu yorandoo ñun ñëpp foofu man mii ndey dinaa def sacrifice ñëw jege samay doom gunge leen ba nu màgg màggu xale yomb na gaaw na suñu borom mën na ko ma ñëw toog sama wetu doom yow nag boo nu nammee di nga ñëw léeg-léeg un coucou un câlin tu retournes gis nga beneen bi may wax mooy euh, élément bi gis nga ni mu demee toujours wax naa la fi la nii gis nga ñaari nit mën nañoo xeex juboowaat Uh-huh. mais di nga xeex ba su ci ay kàddu yu ñaaw génne diggante ba yàqu na. kële tam mooy kii mooy mooy mooy ndaw si ndaw si nga xam ne jëkkër ji da ko wax ay kàddu kàddu kàddu ba jigéen di nga wax sa jëkkër ay kàddu ba rendre ko impuissant wax naa la ko fi semaine passée. loo taaru taaru moom dë jinne lay gis. voilà parce que non kàddu gu ñaaw dafa am fu muy dal. dëgg góor tamit dina wax ay kàddu jigéen ba ku jigéen ka su lu gisee sax du yaakaar ni góor nga day yaakaar ne yow garab gu tax maanaam dootu la santé dootu la dalay suur nga jigi dégg jigéen ñu bari di ko wax góor ñu bari nag nee naa leen nañuy moytu sooy takk soxna dafa am foo ko war a jëlee dafa war wax na ko mais doo toog ci télé bi ku gën ci télé bi nga ne xam naa ko ku nekk mbedd mu romb nga ni bëgg nga romb mu mbedd romb mbedd mu ro télé bi romb nga ni mbedd mais xam naa ko bad mm. nuy bu gën ci télé bi nga ne xam naa kook soo ko takkee soo moytuwul yaa gaayee koy bokk ah soo seetlu rek soo xoolee ay ay maanaam xale lu branché loolu nan ko moytu. wóorul da ngay xool sa portable bi portable bi xool seen numéro portable yenn saa yi nga gis ci xale bu jigéen boo xam ne ay numéro portable. Ah. soo xoolee numéro yi. numéro ñi mu yor ci dëkk bi da ngay moytul da ngay sànni téléphone. mais xanaa daañ fi mës a def thème portable. <laughs> non mais portable non non li ñuy waxtaane loo xam ne du lekk du naan du naan ndox du def lenn nelawul yeewul waaye la mu yàq ci àdduna xale yi jigéen ñi ndaw ci dëkk bi jarul waxtaane portable parce que thème bi ñuy waxtaanee waaw portable daf ci bokk xam nga lu may wax man uh-huh. portable na nga ca def loo xam ne am aisance du ko di ko teg non xam nga lu tax la neex xam nga lu tax bu def prisonnier xam nga lu tax thème bi ñuy waxtaane portable bokk mooy que téléphone li mu tax ci ah, ay jeena ba Seydou Ba xam naa li ci portable bi bu ñu ko waxee daanu dégg lu ne waa waa régie nag ña nga may xoj téléphone li mu tas ci sëy ci réew mi waa si daa rayagu ko fi ah, ah, eh, eh, ndax moodu eh, moodoo li ngeen jox ma loxo moodu moodoo nga ca bitim réew woo jabaram ah réseau ba di def bruit tent tent tent mu dégg bruit bu bizarre ah. yaakaar na jabar ji dafa nekk ak keneen et léeg-léeg nga dégg waxu góor sax dangay woote numéro yi jaxasoo góor wuyu la. Eh, nga ne sama jabar fam teg téléphone am. a fa ne xanaa bii di ñëw li eh, ci portable la ñuy jël tem. Eh, nañu nañu dem rek du côté de la régie ndax xam ngeen ne ñun itam bu nu waxee wax dëgg yàlla sponsor am nañu chance sponsor yi macha allah di ànd ak ñun waaye. sunu bànneex dafay nekk ci ñu yokk ah ñu ngay ànd ak wax dëgg yàlla spaghetti randa xam ngeen koo ko couscous brio yàqu ca dara waaye couverture maladie universelle am na solo de. moom ba mu juddoo ba léegi xale yi amagul cinquant waa ak jigéen ñi ñu doon césarienne. waa ak ñeneen ñooñu ñëpp noppaleeku nañu. coca cola de yàqu ca itam nga randa sa jëkkër coca bi. Ah. bu dee sa goro dafa amee kii yooyu ba amul calorie amul dara. nga tëmbalal ko ca ñaari glace jox ko. benn bi nag ah. nga tegal ko sa jëkkër def ko macc muucul. di ko ndax xam nga ni wóorul non xam nga bu ñu la xam nga lan moo gën a gaaw a yangalub sëy jeeg ah. buy pasar pasareeb dépense am yàq dafa ah. fankul ak bu ah. buñ la joxee nga def ko ci sa calpe boobu ne ko ci nit denc carte ba foo dem retirer mais damay damay daal di wax tout simplement Patisen merci pour votre fidélité allons du côté de la régie êtes particulier, vous êtes commerçant, vous voulez devenir un distributeur des produits de la Poste. Appelez-nous vite au 33 809 34 34 ou contactez-nous par email à serviceclient@laposte.sn. La carte Poste Cash et Poste One, le transfert d'argent le moins cher au Sénégal. Entrez de plein pied dans le monde du business. Le monde bouge, la Poste aussi. Son histoire date de plusieurs milliers de lunes. Durant son long voyage, elle s'attela à choisir les meilleurs ingrédients au parfum naturel. Arrivée au royaume, elle se proposa de No! couverture maladie universelle di doxalin ci wàllum paj bi njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall taxawal ngir askan wi yëpp jot ci paj mi ak nu seen poos mën a toll couverture maladie universelle mu ngi tekki xale yi amagul juróomi at dinañ faju ci post ak centre de santé yi ci réew mi yëpp ca duñu fay dara couverture maladie universelle di doxalin bu suqali plan Sésame ngir jàppale mag ñi am juróom benn fukki at jëm kaw ci seenam paju ak couverture maladie universelle it jigéen ñi wasin ñu war leen opéré duñu fay dara beneen xéewal bu couverture maladie universelle mooy képp kuy def dialyse doo fay dara ci biir Sénégal yépp ak couverture maladie universelle ñi bokk ci bourse de sécurité familiale yi dañu leen dugal ci mutuelle de santé yi gàddul leen seen cotisation bokk na it ci doxalinu couverture maladie universelle taxawal ay mutuelle de santé ci communes yi nekk ci biir Sénégal yépp juróom fukki junniy way laago yi amee carte égalité des chances ak couverture maladie universelle daañu leen ca faj ca duñu fay dara couverture maladie universelle CMU bokk na ci programme plan Sénégal émergent. <laughs> nekk bu ba léegi maa ngi lay xaar surprise d'accord maa ngi lay <laughs> ay pat laa la defal. maa xam nga ne bi ñu dalee lekk nag ba léegi qualité baa ngi doog a yegg si rendage spaghetti yi amul farine blé dur 100 pour cent la ñu ko defaree ci anam yu mucc ay wéyu nit kese mu daal di ñor bu baax te du seey du dankaloo te ak moo neex. eh tegal sama plat génnal sama wàññ.

man daal sopp naa ci jeeg boo dee dugg waañ nga am façon boo duggee waañ sumbulu mii won na nañu ko waaye eh, njole itam won nañu ko de petit tay baasam noonu mm. ah daal dee dëngal tagal xam nga xam nga gis nga lépp a ngi ci fem mm. am na façon boo xam ne boo ko dee duggee waañ sax kenn du la mere ba lay jéppi xanaa xamoo ne eh. am na ñoo xam ne xiifuñu de waaw toggin waa joxin wa ah. moo leen tax a lekk ba suur léeg-léeg beneen bi ci topp mooy nga li gën a bon ci àdduna nag mooy nga dem ba dellu si fekk jeegu panneau publicitaire sa biir kër sol t sol nga xam ne lépp produit bu génn bër ak leneen lépp ci dënnam nga koy xamee mm. loolu baaxul da ngay def sa petit tay baas ah. di jaagar-jaagar yi togg li ngay togg day saf ki koy lekk day kontaan mais boo toggee ba pare na nga dellu ci waañ wa sottee ndox ndax xetug waañ gi waroo ko yóbbaale fañ lekkee daal di benn soupçon de gowe xam mais xam nga lan mooy ah. problème bi mooy que jeeg ji nee nañ gars yi dañoo gaaw ci doxi Ah. mais mën nga leen a téye diggante bi ñu nekk nii. waaw sa xaw mi dafa baax muy dute ji ñi naan kenkeli baa nga defar ko tàkku saan gi rek def sa petit gerte li ngeen li ngeen doguma la bu la dara dog mhm. Mhm. sama xarit Rama maa ngi koy nuyu benn gone la boo xam ni nee na dafa mës gis jëkkër ji commencé bëgg génn mu tàmbalee di ko feccal jëkkër ji ni ko yow sa fecc mu ne ko bañ nga dem rek waaw allo léeg-léeg nga toog léebal ko <laughs> allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam tata Eva ma yi na nga def. maa ngi fi maa ngi ci jàmm. yow yow ban xibaar nga ñu indil parce que mbir mi fu mu ne nii dossiers yi bare nan de. waaw loolu moom dëgg la. xam ah? nga dañoo nekk ay xale ndaw ci biir dëkk bi. dëgg la. Mm. léegi nag boo indee sama boo indilee jabar. waaw. dalaa war a jox le bon exemple loolu laa bu baax. ndax sa yéegoo dafa war a def baax nga ci teg say bët. maa la ko wax boo doo ko réccu. dëgg la. waaye tey jabar mag yi ñoo ngi yàq kër yi. dëgg la day ñëw sëy si dala def loo xam ne dala toroxal. di toroxal sa yaay. nga mm-hmm. ci teg sa bët te loolu la neex. Mm-hmm. nga foog ne mu ngi lay moom mu foog ne mu lay def nag lu baax fekk mu lay yàqal sa àdduna. dëgg la xale bu jigéen nag bu am fulla ci boppam bu sëyee du xool loolu dina def lu baax. bu baax. waa léegi nag jabaru mag yi dañoo war a xoolaat seen bopp. Mm-hmm. suñu mag yi boor yi tamit dañoo war a am la xool fi ñu teg seen tànk. ko jaay booy booy takk jabar mm. war ngaa dugg foo xam ne boo fa takkee jabar bu ëllëgee sa rakk du ko réccu mm-hmm. sa ndey ji ca kër ko réccu mm-hmm. waaye boo takkee jabar bàyyi ko sa kër yaay dem mm-hmm. boo ñëwee ay par quinze jours ngay ñëw bu muus rombee ci kër gi sax dina la woo téléphone ni la muus romb na fi xam nga kon loolu du yoon mais yen tam da ngeen mayul jabar seen jàmm seen jabaru frère de mayu leen jàmm yéen seen yaay de du question jàmm ak ñàkk jàmm tonton Ndoye waaw dañuy ñëw fekk la nga nekk xale bu ndaw ay 16 ans 17 ñu ñëw seeti ci kër gi hmm. nga leen di jàppale jàppoo leen parce que xale xale lag la mën a doon boo gisee nit ku xëy si kër da naan ah ay yow sama mag daa takk jabar da ngay dem xaritoog moom toog ko mm-hmm, mm-hmm. da ngay kontaan da ngay kontaan xam nga hmm. kooku bu demee jékki-jékki rek commencé di la def yoo xam ne neexu la yoo xam xale waaye xam nga kaañu kaañu dëkk mooy kaañu xuloo mm-hmm. tey tey loo loo sopp sopp tata Eva na la leen ne gis nga boo dëkkoon ak man ak maa ji ko waaw loolu dëgg la waaye boo ko gis xam nga doo xuloo doo xeex waaw ndax sa yaay bu la xoolee nga xam la la la wax sa mm-hmm. làmmañ bu ma ko mës a dégg bu ko waxee da ngay teg sa gémmañ doo wax mm-hmm. Mm-hmm. yow daal loolu mooy li nga ñu doon indil dootoo wax daañ ci bàyyi am na solo de sa wax ji am na solo maanaam séyaan yi nanu nanu gën a defar toogaay yi mu gën a rafet te wan ni nag le bon exemple ba ëllëg ñun ci biir tamit ñuy def lu baax. waaw waaw yow baal ki fa sëy si sa exemple la te dangaa bëgg roy ci moom lu baax. waaw la dégg nañu sa wax bu baax a baax. Mhm. jërëjëf waaw jërëjëf. waa ma ni moom euh, yaa euh, yaa Marème Diouf itam nee na nee na mi ngi noo seetaan. Mhm. nee na lu ñu fi wax dëgg la. moom nag téléphone gee ko sore. Mhm. ah bokk ndeyu ajaratu faat si. da baax nee na mi ngi nuy seetaan kontaan na. xale yu jigéen yi. yi. waaw ci seen yaay la war a jàngi sëy mhm. du ci xale bu jigéen bi sëy si ci bu jigéen bi tamit waaw ci yaayu jëkkëram la war a sax mottali mottale yenn yi gis nga la nga wax kenn du ko weddi mais xam nga environnement entourage mhm. dafa doy waar dafa benn ndax gis nga dangay am sa doom sax ndekete jànq bi ci kër gi moom dafay copier ci jànq bi waaw loolu tam njaboot la ñu xam nañ ci dara léegi boo fi dàqee sa jànq sa doom nekk kirim ba la bàyyoon beneen bi <laughs> beneen bi moo la koy wax xale bu jigéen bi nga xam ne mooy rakk ku góor ki waaw day dem di kompoloog yaayam ñu ci bari dañuy dem di kompoloog yaayam contre seen jabaru frère yi même sa jabaru frère lu mu sikki-sikk d'accord am na ay femmes yoo xam dañuy sëyti ci kër tas ko carrément tasar tas ko tasar yàq kër ga ba nga xam ne tey jii ku góor ko fu mu mënti toog nanu nanu jël ki ci ligne bi balaa mu hmm. fay yàgg allo allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam. soppe ñu ngi lay nuyu kontaan nañ ci sa woote. kooku Eva waa man la. na nga def. maa ngi sant yàlla. allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wàññil sa télé. kooku waa man la man la. kooku Eva. waa man la wàññil sa télé wàññil télé ñu ngi lay fay. di leen jërëjëf ñoo ngi lay delloo ziar. bu baax maa ngi ñu di leen ziar. ñu ngi lay delloo ziar wàññil sa tele wàññi ko. d'accord li ngeen di wax yépp dëgg la mais man góor ñi woote sànq ñoo daw sama yaram. dëgg la. ndax gis nga jigéen dafa am lu ko war. dëgg la mu war a am nu mu toogee am nu mu war a taxawee. Mhm. ndax ñun suñu njaboot ñooy suñu produit. Mhm. xam nga TFM suba bu ngeen xëyee yéen a ngi defar ba mu baax. Mhm. di di def pour di innover. Mhm. ku ne sa doom mooy sa produit. dëgg la. nañuy fexe di di jubal. Mhm. surtout ñun jigéen. Mhm. di xool suñu taxawaay bu baax di xool ni ñuy toogee. ndax àdduna. day déglu télé bi. day déglu day déglu àdduna àdduna ah, yàgg. li mu wax euh, am na keneen ku nekk itam ci ligne bi allo. allo wi salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku la waaw man la waaw. ñu ngi ziare seen bi rafet na. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. waaw maa ngi ziare mami ah Ndoye Mali Maram boobu. ñu ngi lay delloo ziar. waaw mais dama leen bëgg xamal ne gis nga góor bu bëgg toxu. waaw bu bëgg a dee. góor bu bëgg a dee. waaw. <laughs> kenn mënu wër gàmmu ay feccax yi raayax yi foon du ko mën a dara. <laughs> ma yow fooy wootee sama xaritu xol. maa ngi wootee fii si Dakar maa ngi leen di seen ndax sa yére yi ngay sol nag man moo may daanal gaawal jox ma ki lay ñawal mu dina ñawal. <laughs> ma ni jeex na tàkk léegi àggalil yokkal li nga doon wax dollil. ma ne góor bu bëgg a dee. <laughs> waaw ak ku bëgg a toxu góor bëgg a toxu. Ah. feccax mu lay tëggi ndax lépp du tax mu mu mu toog. déedéet xanaa. ci boppam ñoom ñoo bëgg a changé ñoo bëggatul ceebu jën. mbaa du danoo bëgg mbedd sàmm ko. waaw waaw mu waxuma ko de mamee ko wax. waaw ma ni moom laay wax nag man ni ne xamal loolu waaye la yëpp wax ne ne raaya boo leen defalee fonde biir kër ñu ne fonde mbedd nu gënal. mbedd bi moo leen gënal ñoom daal la ñuy xool ci biti rek. mbaa bu ndab li rafetee ñu ne la ndab bu ñaawa ñu gënal. lépp ngay teg ci biti laa wax ñoom teg. xam na xam naa nag biti moo leen moo leen moo leen neex. nga mujj set ñu ne tilim moo ñu neex ndax kii dafa set lool. ñooma duñu ñu gis dara waaye man daal sa sa ñaw yee may rey man. mais demal Bamana waa Bamana ñu ngi foofu. waaw après nga bind ma numéro téléphone bi si suuf man ma dem. ñu 33 821 64 72 rek. attends ne quitte pas ma jël ko. très bien. ok <laughs> ma waxal mami nag kontaan naa si moom. maa la gën a bëgg euh, mais mami mami mi ngi ñuy rey de. waaw 33 nga wax. 821 64 72 xam naa man commerce yooyu yeeg mbay seet. 821. 64 72. 64 72 waaw kañ jërëjëf waale bonne journée nuyul ma Maali Maram boobu ndax dinaa ko jël jël naa numéro. jeex na d'accord allez baax. Euh, man dafa am yu ngeen fi ah, wax te ma bëgg ko leeral tuuti. waaw mm-hmm. euh, sànq da wax nee nga euh, kële moom <laughs> sëñ Xaadim de cadreur bi nee na léeg takk gelu jàmbur wóorul. Mm-hmm. xuusal ma ci loolu. Mm-hmm. yow itam nga yokk ci ne yaayam moo la nopp waaye gone ga nopp la. yow itam je t'aime moi non xaw ma nan nga nga fi wax. non ki nga xamante ne ba muy jànku ci koñ bi nga ne fi. waaw ñeme woo ko ne je t'aime bam na naan moi aussi. waaw waaw nga toog ba tey nguur falu nga àndandoo ca falu. Mm. ndax falu fuuy follee ko torox rek. falu fuuy follee ko torox nga àndandoo nguur ga. F F T falu fuuy ñetti F la F F F T. waaw ah d'accord. léegi nag nguur ga falu nga na ak ñoom falu waaw dem nag dikk daal di wàcc oto bu bees ah. jënd ñetti costume ak ñaari karawaat juróom ñaari ah. chemise yu bokkul ah. ne ma ak dellu si ca gone ga ne ko je t'aime waaw mu ne la moi aussi waaye te bu njëkk da ngaa ñëwoon ne ko je t'aime mun la moi non plus waaye waaye lu lay xaar la la cay xaar mooy boo ko takkee jabari télé la bu courant bu coupé nga noppi koo gis man li nga wax jabari télé daf maa rey naqadi na ma noonu xam nga lu <laughs> gars yi dañuy toog seenub saal gis ndaw sa ca tele ba muy leer xet te xamuñu ne lépp luy briller du or waaw mhm. ndoy baat nee na li duuf ak li neewi bokkul mhm. li duuf dañ koo xont yefal ko ba mu duuf li new yi nag dañ koo dóor mbaa mu gaañu neewi heure bu wéree reesaat te jabaru télé bu courant ko pee nga ñaatu ko <laughs> inspecteur non li mu wax li mu wax dégg naa nag gelu jaam bu wóoru du da ngay gis benn benn booy comme nawetaan yi ni mu jubsee ah. nga gis booy boo xam ne moom moo fexe ba équipe bu équipe bu koñ bi yéeg xale bi gën a eh. rafet rafet ci koñ bi nopp numéro 9 ASC e bi daf ko bëgg. yow da nga xam affaire suy dem <laughs> xam ay affaire koñ jël ak yooyu voilà léegi nag xale bi ci boppam xale bi ci koñ bi numéro 9 bi ci ASC bi rek la bëgg. léegi taxawal ci numéro 9 bi ma jël ki ci ligne bi ndax man lii. bu lay soo takkee xale boobu xam. allo. salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sunu xaritu bopp nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu wér. dalal ak jàmm ci wareef yow rek la ñuy déglu. waaw crédit nag xam naa damaa patienté lu yàgg. ndeysaan waa nañu gaawtu wax ji rek. jigéen laa damay sëy. waaw. Mm-hmm. waaye li ngeen li ñuy wax dëgg la. dëgg la. waaye dama laa bëgg xamal ne la jabaru càmmiñ yet benn ca jigéen. wàññil sa télé wàññil sa télé nga baal na. benn jigéen bu sañoon. du nekk kër jëkkëru kër jëkkëru ci kër magu ci kër magu jëkkëram. dëgg la kër magu ci kër càmmiñam. man ñaar laa sama rakk sëy na man sëy naa. Mm-hmm. sama yaay moom kott la nekk goroom sama jabaru mag man mhm. bañ na ko ba sama dañ ko dañ koo ber nekkut ak goro nekkut ak njëkkee nekkut ak rakku jëkkër bu góor du fóotal yaay fóotalul goro defaluñu lenn amul lenn lu ñuy defal ci àdduna te ñun dañ ko bëgg comme ni ñu bëggee suñu yaay sama mhm. yaay noonu la ko bëgg mhm. waaw xam nga gis nga angle yi inspecteur balaa ngaa dikk ci numéro 9 angle yi dañu bare xaadim mu bàyyi maaree wala mu jógee sëñ xaadim du la bàyyi ndax yéen ngi ñuy wax ci plateau bi angle yi danoo bare di nga gis jabar joo xam ne lu ne lan ko defal mhm. mu agsi tas yaakaar ñëpp mhm. nga gis jabar joo xam ne allo ñu yemale ko foofu allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah kilifa gi nu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci wareef. ñu ngi leen di sant bi leen ziar. alhamdulilah macha allah. waaw seen thème bi am na solo lool. jërëjëf Baye. waaye nag dafa yaatu lool. ak mhm. kay ak kay dëgg. waaw bu yaatoo nag. waaw ñu bëgg cee jëriñu. Mhm. dañ koy circonscrire. Mhm. mooy sëy ngeen di wax sëy am na ba noppi. kon ñuy sëy la wax. Mhm. dëgg la. ñetti sëy ñoo am. ban ak ban ak ban. ñaar ñu bon sëy. ñaar ñu bon. sëy. Mhm. Mhm. ku bon ak ku baax. sëy ñaar ñu baax ñu baax sëy. ñaar ñu bon sëy suñu boroom leeralal nañu ko. nee na penc mi bu ngeen bëggee jàmm boole leen ñaar ñu bon. bu ngeen bëggee bu jàmm ci penc bi bu ngeen gisee ñaar ñu bon gaaw leen ci ngeen boole leen. ñooñu kenn du leen atte ndax ku leen atte ñu toroxal la. Mhm. dañ leen di moytu. allahu ah. akbar ñaar ñoo xam ne kii dafa baax kii dafa bon. Mhm. bu dee soxna sax baax nañu jàpp ne am na nattu. Mhm. doomam moo koy fajal nattu bi. ndeysaan suñu boroom dina ko taxawu foofu. amiin ndeysaan góor gu bon ga mu àndal. dañ koo mbugal mhm. mu yàgg yàgg yàgg da koy gis mhm. bu dee ñaar yu baax nañu leen ñaanal te xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg jàmm rek a cay am amiin mhm. nag mën naa am taqali waaye ci sutura lañ koy defee wallaay kon sëy sutura la dëgg la waaye boo gisee nag ñu naan sutura la nañu jàpp nag ne waxuñu lal ba ngeen baal ma ci wax bi. Mhm. dëgg la Baye. lal ba moo gën a woyof ci sëy. Mhm. moo gën a doon li ñàkk priorité ci sëy. ndax ñaar ñuy sëy ak lu mënti xew. muusee ca biti sax xam nañ ne ña ngay joti ca néeg ba. Mhm. kon bu ñuy wax sutura waxuñu loolu. sutura mooy muñalante. mooy yërëmante. mooy dimbalante. te mu yam ca seen biir. lépp loolu mooy sutura ci sëy suñu mbokk malien yi dafa am lu ma jàng ci ñoom. Mhm. dafa am bu ñu sëyee lu ñuy tuddee koñaaso. Mhm. koñaaso nga xam ne dañuy boolee góor geeg jigéen ji dugg ci néegu sëy. koñaaso. Mhm. ñu wéet. ankay wéet googu xam nga luñ ci jublu. mooy doom judd ci bu fekkee ne suñu borom may na leen wér barkel na doom judd ci ñu xamal leen ne sëy bi ca kaw lal ba loola doom lañ cey wut. dëgg la. nañu ñaan rek muy doom bu barkeel. ahankay waaye loolu taxul sëy jóg. sëy leneen ko tax a jóg. Mhm. moo tax ñuy nangu sëy bu amul doom sax jàmm am ca muy sëy bu barkeel. dëgg la. kon wax ji fi mu nekk nii mooy. mooy. jamono jee yàqu. dëgg la bàyyi ndax jigéen ñi bon. ak góor ñi bon. Mhm. ñoo ëpp ci penc mi. kon ki sonn mooy ki yor njaboot. Mhm. yar leen teg leen ci yoon. teg leen ci siraatal mustaqim mhm. ba nga xam ne nekk nañu xale yu jigéen yu baax macha allah. kookoo sonn ndax bu ko yàlla dimbalewul rek mu dajeek mbàddaar yi mhm. kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm. ñun noo lay sant di la gërëm baay. wax na wax ju. tabaarakàlla macha allah. nee na ñaar ñu bon sëy. Mhm. kooku doy na waar ku leen àtte ñu toroxal la. day ñu noppal waa penc mi ndax bu ñu neetee wéy sama ndey kenn du jóg. ku bon ak ku baax. bu soxna sa yàggee yàlla dana ko fay ci njabootam. ku góor ki moom waxuma waxam. mën naa de ba yàlla jàppale ko mu ñaar ñu baax itam. Mhm. lu ànd yàgg-yàgg amaan na bu nu dee tas ci sutura lay doon mhm. itam tàqali koo mën na am waaye ci sutura mhm. yàlla na nu yàlla baaxal yow yaa nga woon ca numéro 9 ba te ñun ñun ñun fu mu ne ni waxtu bi dab nañu liggéey la ma ko bëgg laaj yëpp tënk ko dama ko bëgg tënk numéro 9 boobu noonu noonu <laughs> waaw moo xale bi gën a rafet ci koñ bi ñooy génn waa ba koñ bi ñëpp xam ko ah. yow nga kenn xamu foo jógee nga ñëw nga ñëw ak sa xaalis <laughs> yow nga ñëw ak sa xaalis labat yaayam labat papaam jaaroo ci ndaw si da nga labat papaay xale bu jigéen bi ak nit ki. ndey ja nopp la bàyyi ja nopp la ndey ja xale bu jigéen bi nobbu la la ñu may la ko. Mm. kook soo delloo fa nga nekkoon. Eh. <laughs> waaye numéro 9 bi da ciy delloowaat rek. waaw te te te te loolu dafa bari ci dëkk bi. moo xam maanaam nit di ànd ak nit ba ñëpp xam ko ak ñoom moom nga. beneen bi mooy xale bu jigéen boo xam ne comme xam waa ji nee na yéen seen du doom yi maanaam nga am doom ji am vingt ans. Mm-hmm. yow nga am quarante ans mag. yow sa yaay sa doom bu jigéen bi di gis toujours ngay toroxal baayam ci biir kër gi di ko saaga mhm. ngay xeex ak papaam xale bu jigéen boobu soo ko mayee ndooy baan su demee da koy saaga waaw dafay xeexal moom ni ndeyam doon defee mooy mooy looloo loolu nag lool moo bari xale bu jigéen ba chaque amoo jëkkër yaayam amul jëkkër chaque jour mi ngi teg bëtam ni yaayam a ngi entré ay far nga may ko jëkkër mhm. kooku du fa toog yaay yi ci boppam ñoo war a xam ni seen doom yi ci ñoom la ñuy jàng lu bare bare bare bare mhm. beneen bi mooy ndaw si génn léegi wax na lu am solo góor gu ñàkk fayda mooy takk soxnaam indi ko ci kër man sama soxna ak sama yaay ci biir kër gi yow sama soxna doo toppatoo sama yaay ci dara loolu ci man la ci ku góor ki la mais tamit ay affaire njëkkee la ñu war a rayee ci àdduna bi. njëkke lu baax njëkke bu baaxee nag faaw daañu ko denc. njëkke yi inspecteur du ma daal waaw njëkke bu baax mais bariwuñu ah. njëkke yi njëkke yi su. de bala ngaa jaaxle ngay tudd suñ am na njëkke nekk ci naqar mais ne xoolal am na njëkke yu baax yu am ci dëkk na njëkke yu mën a wax lu ñaaw mais njëkke yi dañoo war yi dañoo war a xam ne fii Sénégal. waaw affaire dara du fi force. dëgg la il faut ñu def loolu seen bopp waaw sa jabar dama war a defal lii par force fii dara du ci force nen dem sëy yi sëy seen sëy bi. lu waaye di def njëkkee boo ci jox waaw ndax njëkkee yooyu ñu ngay toppatoo seen i njëkkee yooyu tam problème la. des fois déglu ma ndax lan li ma wax keroog rek. njëkkee njëkkee boo boo ci jox benn tusi ah. moom da koy dem jox ñu njëkkeem <laughs> fii la bët noonu la ñuy def ñenn dañ koy seen sëy lañ ciy defaree kon boobu nañ ko nañu def waaye xam naa projet de loi lañu koy def rek njëkk yëpp lañ njëkk yi lépp yéen war a yóbbu enrichissement illicite ndax li ñuy jot affaire yu kii la li ñuy jot kiiwul daganul of nag lañ leen war a yóbbu non jël pooju tabaski ba yow xamoo la waa ji jël da nga jël sama benn pooju tabaski nga dem jox ko ndey ba tóor sëy ba ko daan xam naa mu ngay dee euh, sama mag bu jigéen ba te xamul na sa xel a ngi ci woon ah, mu def defalal ko jëkkëram moom mu lekk sama xar man gis naa njëkke yoo xam ne wallaay ndeysaan boo dee ajaratu fat si da baax itam da ngay bëgg nit ki nekk ci ah, am na njëkke yoo xam ne macha allah dëgg yàlla am na njëkk yu baax yu yu mel ni ndey ma tóor sama yaa ngi ni di neexal sa sa non non dama xam ne eh, ku baax la ñu ngi lay seetal am na xam na daal sama jabaraa am na ñaari jikko yoo xam ne ñu baax la mel ni benn ebatra ak mati baan ñaar ñu baax lañ ci sama soxna xam nga da ngay wax dëgg voilà mais na ñoo xam ne tas rek yàq rek la nekk ci am waaye dafa am may tëjee gis nga boo dee njëkkee bu baax sa càmmiñ nga nga nga sagal moom nga jàppale parce que nit ki mi ngi lay sopp ci kaw ni muy gisee sa waa kër mm-hmm. nit ki danga baax lool bëgg ko lool mu daal dee gën a nopp sa càmmiñ enrichissement ah. illicite lañ leen war a yëg <laughs> waa léegi tàggatoo nga ah, parce que liñ leen di jox dañ dem di ko neexal seen i sëy tàggatoo wala man rakkaaj moom la damay mënuma benn maire boo xam ne dafa sëy 41 ans waaw euh, te ñooñu ñooy ay royukaay muy Aminata mbay Lendoor mi ngi dëkk Liberté si yaa Aminata Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yàlla Njaay mooy mooy mooy borom këram kan kan Njaay yaali Njaay bàyyi yàlla Njaay mooy borom këram Adja Njaay ak ñoom Soora ñoom maire boobu maire bu baax la te ñu rayukaay la ma yu jigéen bari dañ nekk mu leen di teg ci yoon ak ñoom ñu yal félicité bu baax a baax yàlla na yàlla yokk taxawaayam yàlla na yokk yàlla na yokk yàlla na yokk sunu lingeer koy tàggoo man damay cax jéggi bàyyi leen monsieur Diop France wala déedéet damay cax jéggi bàyyi leen ko fi ba leen di ba dellu si waat li baax ci café dama lay laaj ndax da ngay tàggu waa France ndax da ngay tàggu waa France da leen di nuyu waaw mais waa France ñoom lay ubbee ñoom laay tëjee. ñoom eh, ngay bëggee ñoom lay bëggee. ñi la ñuy jël di jël émission <laughs> émission bi di ko neexale seenub sëy <laughs> dama dama naan jeeg ji li baax ci café te bon ci jeeg. mooy tàng rek kër gi ñëpp tàng mooy tàng. tàng nag baax na nga wane sa bopp mel ne mami defal tuuti xadar baax na waaye nanu xam ko ñu koy yemale. Mhm. xam nga problème bi mooy gis nga jëkkër. Mhm. da nga koy kafeel ba pare di kaf ak moom. Mhm. di ko taajal suppu tàngalal ba mu tàng jërëjëf jërëjëf ci topp nag mooy di tàgguwaat waa Sénégal gépp suba di leen wax ne kenn gënu leen waaye xam nga ne yow monsieur Diop moom borom kenn dul gor kon boog monsieur Diop borom garab yi kenn dul gor euh, li ñu doon bëgg rek bokk na ci li ñu fi jot a wax yépp ndax waxtaan woo gis am na lu ca baax am na lu ca safaanu lu sax li ca safaanu kenn soxlaaw ko waaye li ca baax daal na nañu fexe bokk ko mhm. ndax bu ñu nee wareef danoo bëgg ñun suñu bopp dañuy jàng ci li nga xam ne yéen ay ñu jàng ci bu nu jàngee ba pare nag fexe wéyee ko jëfee ko ndax àdduna lu baax rekk a koy doxal lu bon mësta baax te du baax ba faw ah mbokk yi nag kon xam ngeen ne suba liggéey bi dafay demee autrement ndax ñu ngi ñu koy wax dañuy def direct xëy na suba du ñu ñëw waaye nag dañuy con ko waaw concours général bi am dañuy wéyal rek maanaam suñu thème bi ba semaine prochaine bu soobee yàlla ci ñi ñu war a ñi ñu war a primer ci nga bokk waaw kañ kon bokk mbir maa ngoog ñu man Moussa Diagne man ni ma ni man kan ci nga ni. man ak Moussa yow aha waaw Linguère. loo wax ci li mu wax nii. non man mi dañ maa war a primé suba ca concours général bi. yow itam woo nan ma. yàlla na yàlla defal leen jàmm toj toj ci boppam. Ah, xam nga xale la ci dañ ko war a primé. waaw wala man bu ko defee may modéré. xam nga sax dama am sa turandoo Awa Dior Diop. laa gis càmmeñam di takk jabar mu dem ñëwal lu mu war a sol suba ba ngoon jot ñëw indi tanaan bu leen jënd dara. xanaa kook xaaru ko ko yebbe jërëjëf kon mbokk mbokk yi jërë ngeen jëf jox nañ leen rendez-vous may remercier bu baax a baax salon de coiffure Fatoumata mi ngi ci 77 648 56 ba Bamana Couture joxe naa seen numéro léegi kon mbokk jërë ngeen jëf mbokk yi ñun yéenay suñu cofeel yéen yéenay sunu bànneex di leen am moonu neex waaye nag ajaratu ulay sàmb man ajaratu uray sàmb ca rue 11 xawma loo defal sama waa régie waaye daal fii moom safe nga fi ndax ñëpp sopp nañ la Eva mi toog euh, per doom nag neen moom nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax képp ku yaay di soxna nekk ci biir kër yi ñu ngi leen nuyu di la massalu coono ndax na nga toggee ci biir kër gi xam nañ ko waaye jigéen ñi ngeen continuer euh, di muñ muñ bu ànd ak dignité nag nee naa muñ baax na waaye bu nu kenn maasale ba nu tolloog suuf si nanu xool lu ñuy def te di réfléchir ndax lépp dafay daal di ñëw daanu ci suñu kaw ñun ñooy sokkalu famille te bu nu nee sokkalu famille ah lu ñëw rek tey tege sa kaw yàlla nañu muñ te woyof toll mbaxane jërë ngeen jëf